asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye tamit di leen baal àq di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba alxames si kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag saa su nekk di sama nijaay sama kilifa sama xarit Alaaji Njaay Loo Njaay maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la sargal di la ñaanal nga yàgg fi lool lool lool lool te wér bisimilah alaaji. yal nañ ko yàlla boole nañ ñëpp. amin amin amin alaaji. sant ki yara sant nag. exact muy kenn képp di saa borom. exact nu waaye mel mooma. bu la yàlla dimbalee ba mu defal la lu mu xañ sab nawle. Mm. te gënoo ko sant ko. walaay walaay moo yor lépp. ku fi tane yàlla la jàppale. dëgg la. ku yàlla seetaan ñu reetaan la. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. nañ ko santaat mu ñu fi maan démb mu toogaat tey. ndeysaan. du sunu baax du sunu jaamu yàlla ku yaakaar ni jaamu nga yàlla ba bëgg a dab yàlla. man nga sa bopp. coobay dem ak yéen maa ne. wallaay wallaay yàlla sax. amiin amiin amiin laaji. di siyaare sunu xalifa général kullu murid. moom la ñu am. sëñ Sidi Maxtaar. muy portable Serigne Touba di sëñ Bamba Lamin. yàlla na fi yàgg lool. amiin amiin amiin laaji di siyaare nag Serigne Sidim Cheikh sama wasila. yàlla na aw fanam gudd lool ba lay sax. amiin yàlla defal ko jàmm <coughs> moom la ñu yeggali yéene Cheikh Abdoulaat Mbacke. amiin amiin alaaji. Eh, ah, di siyaare it bu baax a baax sa wajuru jigéen. ndeysaan wallaay wallaay alaaji lam doon jëmbat yàlla na ko déq. amiin kamara ji bi ant booy amiin. loxoom tuuruwul. ndeysaan déedéet. kon yàlla na fekk lépp. amiin amiin alaaji amiin ñaan borom kër gi li ma ko faral di wax. mën naa ko jur dugub géwélam. ndeysaan ndeysaan ndeysaan waajuram laa. waaye ku def lu baax ñu wax ko. dëgg la laaj nit ñi dañuy jaawale wayaan ak gërëm ak cant. ndeysaan ndeysaan ku bëgg a wayaan xam nga foo jëm doo wayaan ci télé. dëgg la waaye ku def lu baax nee ko jërëjëf. ndeysaan ndeysaan soxna si nga def tranché. Mm. muy ñeent. ndeysaan mu xut ba jox la ko. Mm. bu la toggalee sax lu neex neex jërëjëf soxna. wallaay wallaay moo koy raw. wallaay ah, wallaay Youssou jàmbaar la. bëgg na réew mi mu mm. ngi def ci réew mi yaatal na mm. yéene na ñëpp jàmm yal na yàlla ak yonent bi ak waajurum fekkee lépp isa ay rakkam yëpp ak doomam yëpp ak directeur yi yëpp benn lam du yëngu yéen a ko wax yéen jigéen ñi bu dee douze nag bu mm. yëngoo moo ko sabara yem kon ñi mu am ñëpp yàqaluñ ko dara mm. di ko ñaanal bu baax di si gën a siyaare nag Ibrahima Sall mu Cheikh Abdoulaye Mbacke mooy directeuru SICAP day lépp sëñ Blaat boo ko tuddee mu jooy te man ko bëgg sëñ Blaat rek sama sëriñ nga ñaan bu baax ñëw nag ci mm. euh, loolu ñu wax buur géwél euh, woowu tur mm. euh, dammel la woon ak géwél ya moom mii saala waaw dammel géwél boo mës a dégg buur lay doon ndax la buur ba daan lekk la géwél bay lekk mu ngi mel ni bëkk néegub sëriñ bi mm-hmm. li sëñ bi lekk bu baree da ko naa barkeelu ji mm-hmm. kon buur géwél yàgg na fi. dëgg la baadoolub géwél amul. dëgg la ñi ñay wax rek. dëgg la la ñu duñu baadoo la. dëgg la addina mm. mën naa dox. Mm. ba egg si. Mm. waaye bul xam mukk fa mu jógee. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye géwél buur la daan doon. Mm-hmm. nëbba la lu bon feeñal la lu baax. ndeysaan benn siège. képp mu jox la ko nga toog. dëgg la dem ci mbooloo ñëpp naw la. moom la Seydina Muhammad bëggoon. moom la yàlla bëggoon ñëpp bëgg. kon ku xeebub géwél mbaa nga bëgg a yóbbu géwél. ndeysaan da ngaa yoruloo ko jox te ñaay na ko. waaye ku fonk géwél bëgg ko. maa ngi ko ñaanal bu baax yàlla defal ko. wallaay ñu koy bëggee loolu mu jaar it bu mu xool. dëgg la bu mu discuter bu mu wax. ndeysaan. lamboote nag. ah amul essence. ah jëru muy taal ndax du tàkk. dëgg la dëgg la macha allah macha allah macha allah. <laughs> Ah, Sala Bigué. Fatabakalla macha allah Ndiaye mbégte mu rëy nag dañuy am toog ak yow ngay kenn kenn ci biir télévision bi. nga xam ne Fatabakalla macha allah yaa ngi sa kër ëppale wu ñu fa dara macha allah. am mbégte lool lool bisimilah bisimilah Sala. jërëjëf Adja Dégène maa ngi lay nuyu bu baax. di la ziar di la balu ak di la baal ak di nuyu téléspectateurs yi nga xam ñu ngi seetaan télévision Futurs Médias miroir du Sénégal di sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm sama waajur sant sama sëriñ sëriñ Ousmane Mbacke ibn Cheikh Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Mawdo Moustapha Moustapha Mbacke mu Xaadim Rasul di nuyu kilifa diine yëpp nag kilifa aada yi dégg nag di la beral nuyoo bu baax ni ma ko saa su nekk yow li ma naan nday ji seex nga te nag nday daara lépp li tette ŋab bokk lépp ngay def ku ñëw nga gérer ko à ta manière ku ñëw nga gérer ko sa jikko te loolu baax moo koy def baax nag alalu yàlla xaritam la koy jox jàppal na yàlla sa xarit alhamdulilah yàlla na yàlla sàmm sàmm la sàmm sa njaboot bàyyi la ak sama nijaay met baabu sama xarit ma ko nuyu baax amiin amiin amiin di nuyu nag sama baay bi ndeysaan li ma ko démb laa la moo ko gën a xarit sama sama kilifa parce que moom li muy wax ci nit ñëpp ci moom la ne parce ñun amuñu lu ñuy prouver. ndeysaan. ñun ñii ñooy suñu référence. dëgg la dëgg la ñun bu ñu génnee ci mbedd bi def erreur. ndeysaan ñii ñoo ñu war a woo dóor ñu. gàgganti leen. parce que ñun amuñu droit def erreur. am na moom ku lépp di communication traditionnelle amuñu droit def erreur. dëgg la kon dañ koy ñaanal fan wu ak yéen yàlla ah. eh, lu ci xol bi lépp bëri waaye daal ah. weex du wees tàll xonq du wees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 ñuy dugg ci hôpitaux yi dugg ci dispensaires yi doxantu ci case de santé ak poste de santé yi mm-hmm. doxantu ci néeg yu lënd mi ndax ñàkk ba ci mbedd mi mm-hmm. mais mais bu baax a baax malaat yi waaye sañ nañu nag ñaan buur bi nga xam ne moom rek mooy docteur bu mag bi moom yaa rab bi yal nañu saafaraal waaye tamit saafaraal leen bépp xeetu jàngoro bu nëbb ak bu feeñ ci barke laa ilaha illa allah muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallah macha allah ñuy àndaat ak yéen ba tey nag dugg ci prison yi alaaji nañ nemmeeku bu baax a baax ñii nga xam ne ñoom la caabi féetee gannaaw ne naa leen euh, euh, euh, béréb yooyu ñu baax lool lool lool lool ñu nga fa ñu safaanoo nga fa maa ngi nuyu nag bàjjan ay da jong liggéeyam boobu maa ngi koy sargal bu baax a baax fa tabaarakalla macha allah alaaji di leen ñaan ñu génn fa ak seen sago ba ñibbi ci seen njaboot te yàlla bu kenn manqué ak nday xadi géey yàlla bu kenn manqué li ci barke alxuraan al karim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 ban moo ci royal ban moo ciy pire ndax nit ñi xam nañu mbëggeel tigi tigi tigi su ñu waxee mbëggeel nag waxuñu mbëggeel ga nga xamante ne bëgg nga ko sa wéyjur waxuñu mbëggeel ma nga xam ne bëgg nga ko sa mag ak sa rak waaye mbëggeelu ñaari way dencante nañ ko doon doxee ndax dafay tax mbëggeel ma nekk mbëggeel est-ce mbëggeel du lu ñuy suuxat est-ce que du mbëggeel du lu ñuy roose est-ce que mbëggeel amul fake est-ce que amul royal ak pire lu yéeme lu yéeme fa tabakalla macha allah waaye xam naa ne yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew yéen la ñu gën a xam luy mbëggeel te di ngeen dugg ci numéro yii di 88 628 22 22 88 628 22 22 sooy wootee bitim réew nga def 00 221 33 841 22 99 00 221 33 841 22 99 balaa ñuy dem seetaan revue de presse dama toog nag ak ñaari kàngam ci mbëggeel <laughs> kenn ki docteur mbëggeel. moom laa jox lii xol bi euh. te keneen ki professeur bëggee moom laa jox xol bi non dëgg dëgg waxoon naa leen ni TFM li li li Lamine Samba def ku jekku day baal. waaye ñëw ci mbëggeel rek indi ay ah di teel na téléphone yi ah, teel na. ah teel naa ñëw waaw sax du seen seen ak revue de presse dañu dañu gis docteur mbëggeel ndimgal ki ci ligne bi mag laa sonal lu ñuy def allo. allo laaj yi jëlal docteur mbëggeel. allo. <laughs> salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kooku papa Ndiaye man la de. Ndiaye. sant wa. sant wa. fooy wootee. maa ngi wootee Belgique. Belgique ndeysaan. tarkalla Diop. ma maa ngi leen di yaatu bu baax a participer ci ñu lay ñu lay sàggal bu baax a baax. waaw c'est la laaj ko lu tax. lu tax waaw bëggoon na comme li saa dégg di wax rek saa yu demee maa ko dund daal moo moo moo. moo wóor waaw waaw waaw. moo ko dundee. waaw ma bëggoon ci joxe tuuti rek sama kii sama participation. ñëwal yow rek la ñuy déglu. ah voilà dama doon wax rek mais euh, comment li ci woon naan mbëgg am na amul. ça existe bien am na mais il faut il faut que ko pour nga mën a rendre compte ci yéen quoi. Mhm. am na macha allah tabarkalla di doon sëñ sama borom ba yàggul. Mhm. ça fait maintenant cinq ans rek yàlla def ñu xamante ci à l'intermédiaire keneen quoi moo moo ci boole. Mhm. ci ñuy xamante boobu gisante wuñu ko. c'est ça. mu doon du mbokk du Sénégal ak Guinée rek mais doon xoolal ko xam ne vraiment su ma woon ni sax te yëpp dina yàq ci dina yàq ci biir quoi. donc yàlla defal ma sutura yàlla def ñu ànd ba mu indi ma fii ma fay ci te balaa nga doon ñëw lu nga def ko doon ah yaa ngi Sénégalais ah yaa ngi intérêt naa ko sànq sànq da caa wér nga ni ko mu ne kii nga benn bu ma ko indi woon mu doon ko aw sama bopp moo war bu kii ñëwee demee ci sama semence xam nekk am naa ci moom yaakaar donc alhamdulilah rabbil alamin boobu léegi ñu nekk ci biir kër ñu doon ci bu baax. doon boo xam ne fu ma sa dalul vraiment fa tabaarakallah fa tabaarakallah. macha allah. boo gisee ma woote tey li ci des fois émission bi dañ ko xool léegi. ndeysaan fa tabaarakallah. wallaay kooku ma jëriñ dama ko di dama ko ñaanal saa su ne ay xale la di. ndeysaan macha allah muy muy 35 ans wax na ko bu baax alhamdulilah. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. vraiment maa ngi di koy di di ay bokkam. macha allah xam naa kat souvent yéen la ko tey c'est un peu difficile. dëgg la. nga dem takk beneen koo xam ne seen du du sa sa bokk quoi. ndeysaan c'est très difficile waaye nag. macha allah macha allah. parce que jiw na parce que jiw na ko samay bokk sama yàlla la fay jooy. ndeysaan ndeysaan maman Maodo dama kii bi mu la bëggee bi mu la ñu mu fonkee say mbokk. wallaay wallaay wallaay. parce que loolu yow la ko la ko teewoon ak moom ci suñu gerte ko. bu dee yàlla rek ñoo xam. wallaay pour jëlee sa yaram ba allah macha allah te ça va non non demal demal ñu ngi lay déglu <laughs> macha allah. ma ne di pour papa parce que bu ñu wax ni rek damay xaar ci góor bi mu dina jox ak góor bi yooyu déedéet man sama jëkkër saa yu ma xëyee saa jóge maa ngi fekk bu ma yàlla def ko dëgg trop ma ko maanaam ma maanaam maanaam da ngay suuxat mbëggeel mi. man rox man rox. bëgg dañ koy roose. saa yu koy roose dafa te yàlla bi gën a wax sama bëggee aw kontaan nañu. kontaan nañu ci témoignage yu bi kon dund nga ko maa ko dund nag moo leer mbëggeel mu set wecc jërëjëf. alaaji <laughs> ba dem leen parce que paquet yi tey bëri na bëri na bëri na bëri premier paquet bi ma lay ñëkk jox mooy lan. Hmm. mooy est-ce que bëgg naa nit yow kot. xam nga kii dafa wax lu am solo. Mm-hmm. ndax nee na bëgg la bëgg sa famille. Mm-hmm. mu am ñenn ñu naan nit ki su la bëggee day bëgg lépp loo yor. Mm-hmm. lu sikk ak la sikkuleeg lépp mu bëgg ko. wala boog mën ngaa bëgg nit ki moom kott moom dong te bëggoo famille am bëggoo leen. docteur kott mm. bu ko galgal ci suuf nga jëm wóorul. mooy kott. Mm. <coughs> kott bi am solo mooy kott ki nga bëggeel kott ay bokkam. kot li ma am. dootu la rëcc gàllankoor ay lépp. mooy li nga am rek. Mm-hmm. dama la ni nit boo ko dee bëgg. Mm. bu ko yàlla la leen lu mu am nga bëgg ko. Mm-hmm. ku ko sopp nga bëgg ko. ba ci jana xam. ku ko sopp rek jeex nay wax. Mm-hmm. jeex na. tànnee fu mu bëggee nag. mu mm. ngi ci carte yooyu baatar te xamoo fu ba ne. tànnee fu mbëggeel. mi ngi ci carte yooyu baat te xamoo fu aas ba ne. demal te moo man juróom-ñeenti ba dax benn la. waaye moo leen dominé bëgg naa la te yàlla tax. yàlla na nga ko wax as gor. su mën a fay te yàlla tax. ndéet. cëf demal. boo bëggee nit te yàlla tax mu fay la te yàlla tax. Hmm. muy nawet bu nangu ba nga waxoon démb soo jiwu set boo hmm. jiyee di nga bari sàq. Hmm. lu yàlla lëlul du doon dëgg. te mbëgg yi sëpp yëpp boo ko seetloo. Mm. li cëpp. Mm. li la góor di dem. Mm. oto kor na ko mu yaakaar nit a koy woo. <laughs> daa lu ne ci moom. Mm-hmm. dafa am lu mu bëggoon te ñàkk ko te doyul lu ci. yan mm-hmm. yàlla mosul muy góor di jigéen. mu suuxa mu suuxa. bëgg nit euh, kaf-kaf lu ba mu rëcc la. waaw li koy indi nag toujours ñaar rek la. mënoo maa muñ erreur la. mënoo <laughs> am ko mel ni man erreur la. ci aju ci ko góor ci aju ko jigéen. ñëpp a yem jërëjëf demal. ku góor ki mm. na këlkin ni bi muy dem buntu kër la weesu mm. waaye tamit fekk fëgg nañ ko mu ne entré mm-hmm. waaye ba mu duggee nañ ko ni ci biti kii am na ku may xaar mm-hmm. dama laa ko fi la mm. ñaar ñu soppante dëgg dëgg bëggante te yàlla tax mooy xasum seew ak reenu siiw ak reenu siiw ñu nit bagaanuk foogoon naa ni mukk du man dëgg diggéen lu koy suuxat ngor foo jaar mu jib bi kon nga ne seewu sëy ak man ma ne siiw ànd ak yow. waaw. mais loolu. dëgg la. lu ngor dugg nag. fu mu jaar dëgër. Mm-hmm. te li ci ëpp boo ko seetloo li ci ëpp na ma yàlla jégg ñu ma ko wax. Mm-hmm. lii nekk ci wari góor ni ko ci jigéen. Mm-hmm. léeg-léeg jigéen bëgg ba loro. ndax tamit jigéen amul ba loru. Mm. ndax ka mu dajeel amul ngor. dëgg la. waaye dama la ne. kii la bëgg ki woote léegi. Mm. askan. Mm. mën naa yaatu waaye nawle yombul. Mm-hmm. la nawle yombul. askan mën naa yaatu yaatu. Mm. bu doon askan ak nawle benn la. koo bokkul askan bu la ñaanee soxna nga may ko. waaye jikko yi tax nga dàq ko. dëgg la <laughs> du fi jeex du jeex. Mm-hmm. dama la waxoon ni la fii mbëggeel. piis bu ñu dagg la. laaj ko teer. Mm-hmm. tant que booleeku ko sol du yomb. déggoo ma. dama la dégg loolu fu mu ne ci yow laa nekk. piis bu ñu dagg la tànk boole guñ koy sol ko du yomb. Hmm. lay boole ba nag mooy xol yi. Hmm. ñu ànd. waaw ki la bëgg dëgg muy dëggal suñu mu hmm. bu nekkoon Paris ngi nekk Sénégal. mën nga ko sii si ginnaaw bu dikkee benn lay doon. wallaay wallaay xol yi ànd. xol yi ànd cay xol dëgg nag day yor jikkoy suukar. suukar ci naka. daa gën ji ndox sooy te ñu biseetagul demal. <laughs> docteur ma ngeen dégg ko noo gis ne lii non dëgg-dëgg ci laa xamante ne nekk te xam-xamam dëgg ci bàttin ca macha allah macha allah macha allah na bëgg ma yow ko suukar bu suukar bu tàggoo ni damay garaji naa ndox. dellu mm. dellu si na àggul. day de àggul laa wax dëgg. du mës a dellu ba àggoon day seey. yëpp lañ ñuluk rek. te gis nga mbëggeel. Mm. ku bëgg cuuc. ku bëgg ginaar bi bëgg nenam. dëgg la. te sëy dafa doon loo xam dafa sacré. nit ki boo ko bëggee. Mm. léeg nga gis sax koo xam ni dafay jël koo xam ni. Mm. amoon na jëkkër ami doom. Mm-hmm. waaye tey ji kooku boo bëggee nekk ak moom. Mm. lu mu la bëgg bëgg bëgg boo bëggul doom ya mu am sa diggante ak moom day day ñagas. jërëjëf kon bëgg dëgg. du yow kot du yow la koy bëgg. rek li sa papa Ndiaye la wax lu mu am rek nga bëgg ko. ak nu ma mën na mel. ak nu mu mënti mel nga bëgg ko. ndax ndax ndax jëmm nit ka ngay teg. jëmm ja ngay teg ba pare nag. maanaam da ngay ànd ak moom sa jikko te bu ànd ak moom seen jikko. Mm-hmm. di ngeen koo ànd ak jikkoom da leen sori. doo leen bouger mètre. koo bëgg a àndal da ngay ànd ak moom ci sa jikko. Mm-hmm. te jikko ci la ñuy nawee mbindeef. Mm-hmm. jikko. ki la gën jikko rek la gën. saa soo taxee foofu dama lay laaj kon naka la ñu mën a jàngatee. Mhm. sëy yi nga xamante ne léeg day dal góor di dal jigéen. Mhm. léeg-léeg nga gis jigéen joo xamante ne nee na bëgg na góor. ko sëyal bëgg le mokkam est-ce que bëgg am na fa léeg-léeg nga gis góor goo xamante ne ni que ma ngay sëy jigéen. ñoo mhm. ko yow kottu yow dong sa yaay sax bu mu fi ñëw say jikko neex ma yow kottu yow dong laa bëgg su mbokk yi ñëwee sax ngay fudd est que bëgg am na fa lan moo fa am su loolu lan la xemmeem la wala lan la lan la exactement wala bu bëggeel bee ñëwul wala lan. loolu lañ naan tubéy paate képp ci boole. maanaam. yow kot dong rek. laa bëgg bëgguma keneen. Hmm. kooku moom ci boppam war naa xam ne sax bu fekkee nite na war naa xam ne bëggoo ko. Hmm. sa papa nee na làcc ak kàpp mbokk rek ngay gis. Hmm. làcc ak kàpp mbokk rek ngay gis. ba ne feebar ba ne làcc. ak ñun la kàpp. benn bërëb mbokk rek ngay gis. dëgg la kon ku la bëgg dafa war a bëgg say mbokk bëgg li nga am. waaye boo ne ko sëy bu amee tricherie rek di dem déggeen. man léeg-léeg sama gis ñoo xam ne dañuy sëy mm. di jël sa téléphone di mm. làqati di woote mm-hmm. yëpp ci duusee kaw terrasse duusee kaw si yooyu day yokk nit xalaat dëgg la te gis nga nit ki booy sëy moom bu ko yokk xalaat dëgg la ni ko dugal stress. da nga ko war a wan ni man ak yow benn la union la. dëgg la suñuy xool nañ ko boole mu nekk benn. lu mm. su ma feebaree sax nga sentir ko. waaye nag euh, paquet boobu téye ko dinaa ci dellu si léegi ci yow. Uh-huh, uh-huh. ndax nëbb boobu. Uh-huh. ma delloo allaaji allaaji ñi nga xamante ne ne que jigéen la ñu am na fi ñu bëri ñoo xamante ne dañuy sëy. Mm-hmm. jigéen la ñu fekk la nga njaboot fekk la ak say mbokk. bëgguñu mm-hmm. ci dara. Mm-hmm. soo waxee ñu ne déedéet sëy bi daal man bu ma kenn fatt yaa ngi dégg indil la ay raison yu tax ñu ne la bëgguñu sa mbokk wala bëgguñu sa njaboot noonu ngay tamit gis góor goo xamante ne dina la jël dugal la ci kër gu ne léeng mhm. yaa ngi dégg mhm. waaye ne teg fa gardien teg fa xaj ne la bëggumaa gis kan yaa ngi dégg loolu noonu allah ji su tuddul mbëggeel maanaam te ñu tuddee ko mbëggeel loolu lan la waaw xam nga signature ub liir hmm. su màggee bu effacé la mu diggoon saa borom da koo deful signature liir liir day <laughs> <laughs> waaw demal amul benn lii bu daan doo jooy. Hmm. faw saa borom làmbatu la gësamuñ ne tax ngay jooy. Hmm. mu la nëb. li ma xippigu a wax. Hmm. sama xol jeex moo tax ma jooy. ndeysaan. mu ko ñaaree bi jooy bi nag mu ko sama bàyyi bu tedd ba bari ay noonu. une semaine yàggul tamagul lu matériel la. bëgguma ko reetaan yàlla na ma lu matériel la. mu ne ko ñettee bi jooy bi nag mu ko may mu gudd fan ma màgg day ni saa ndey mbaa saa bàyyi. mun ko signal mm-hmm. mun ko signal naa mun ko su boobaa nooy def mun ko fay borta du mat mm-hmm. kon soo wëlbatiwaatee màgg ñëw mm-hmm. almadi gi mu wax takk soxna akob xaj ak mbindaan ak gardien bu jur yeewoo siyaas yi ba jeex na mbëggeel amatu fa naxantee fa nekk bu pënd bi wuree kenn du toox dama ne mën naa xiin ba yëngu boo amee gerte neel tekk ndax mën naa wuri làmb ngelaw nag ku ci weer sa yére boo képp mu weeree ko. Hmm, làmb ngelaw. ngelaw waaw. <laughs> kuy naan ngelaw boo gisee bruit mat naa wax. kon daal ñooñee eh, dañuy dëbb ndox. dañuy dëbb ndox lépp seen kaw la jëm. jëtte yedd. Hmm. kot man rek. Hmm. ku la ko nax. say mbokk dañ may déranger. xam nga say doom dañ may déranger xam fu mbokk ne. ci sëy sëy bu mbokk amul tey tase. c'est ñaari ñetti étape la. Mm. première. Mm. étage deuxième troisième. Mm. lu lu dëkk ci premier bi. banque sa baaraam. ka naa ay ca saala. banque. bëggante na yàlla tax te gisoo say bokk. premier étage. waaw banque bi ci étage yéegal. gis bokk tëral ba jël ba moom leen yirif leen ngir teraanga. bëgg naa deuxième étage bi man. Hmm. ñëwal troisième. étage lu fa lu ñu am bëgg te yàlla ko ginnaaw ngir ba léegi mu tax dara bëgg naa troisième bi tamit. ñëwal ci ah, ah, nga yokk teel a. demal quatre lu fa ne. lu ma la jox gàddeel ko ko su manqué ba léegi nga wan ko. bëgg naa quatrième ah, <laughs> soxna boo nee jàkk loo ko digal mu def ko ram nga ñoom doo tudda. cinq bi nag moom a gën a neex ñëwal sixième ah dem sixième yokkal leen ma baaful bi ndax dégguma baaful bi ndax dama defoon doon ndey bi boobu daf maa lu nekk six ñëwal sixième nañ ñëw yokk baaful bi sixième ñëwal sixième liir boo ko joxee bu jooyee am na lu ko nax hmm. Hmm. daa gémmentu sàngal ay waay allah eh, demal waay allah yemal siis bul bul yéegaat bul yéegaat ndax léegi te dugal naa ascenseur est-ce que yooyu doyatuñu yaa ngi yaa ngi dugal naa pour yéeg ba gaaw ndax lii dafa su ñuy suñuy laajte lu démb ak mbëggeelu tey mhm. coow li li ñuy naan bëri na mhm. léeg nga naan nga dégg ku ne mag ñi bëgguñu woon mhm. kii naan xale yi tey lañu gën a bëgg ndax ñooy tànn waaye dama bëgg ci tànneef boobu ñu taxaw ci ndax suñu nee xale yi ñoo gën a bëgg ndax ñooy tànn léeg-léeg nga gis ci kenn koo xamante ne di nga beddeeku bàyyi sa yaay bàyyi sa pap bàyyi mbokk yëpp ne kii laa bëgg loolu xamante ne nekk ka nga dajeel amul xelu naxtaan ak yow ba xëy suba delloo la ca say mbokk ci ci ci relation ci pour relation bi baax mhm. koo xamante ne su fekkente ne amul xelu ci biir sëy ba naxtaan ba mu wan mbokk yi ne la ngeen doon bañ mhm. xamul leen ne newu fi mhm. jikko ju rafet ja fi nekk ñëw leen ñu sëy sëy bi loolu day metti gis nga Adja Digène wax nga lu am solo ah. jigéen boo ko bëggee mu bëgg la mm. ay mbokkam mm. am na tax ñu am na lu nu njort. dëgg la. dana yaakaar doo ko yor yor bu rafet. jërëjëf. loolu la ñu yëkk jiital. dañuy hmm. yaakaar di ko indil fitna joo xam ne mun naa dal dal ci koom dal ci seen i mbokk. jërëjëf. mun nga ko indili coono boo xam ne ëllëg di nga ko maral di nga ko raflet di nga ko toroxal. Hmm. loolu dong lañ ciy xalaat. dëgg la. waaye bu la ko yàlla joxe yow muy góor. Hmm. nga jël loolu lépp dëxañ ko nag sa xol du lu wax nag. da koy jëf. da koy jëf wax passé na. doo manifesté wu. dafa fees ba ci ligne bi ba ba allah jëlee ki ci ligne bi. allo Pape Jële waaw. ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay. na nga def. Mhm. ndeysaan. ñu ngi dellu siyaare. Mhm. ayca yaa ngi ci biir. laasa dugg ci son bi. am man li ma gisee mooy xale yi bëgg a àndee ak man bu ñu àndee woon démb parce que jikko moo ko yar. Mhm. nit ki mënoo ànd ak moom te mënoo bëgg mbokkam nit ki mënoo ànd ak moom te mënoo bëgg mayam te bëgg boo gis defar nit ki ay mbokkam defar sa relation moom mooy dem ba nit ki ñoom ñu doon mayam comme ni ko sëñ bi ko bàyyi yaay ñu waxee léegi. que jigéen ñi war nañu seetaat seen bopp bu baax. parce que soo juree doom war ngaa xam ne gis nga la sonn ci say doom war ngaa xam ne ci juróom doomam ba mu toll noonu ba bëgg la. Mm. doom la ci doomam. kon kooku démb bi am ci kër moo la ci laaj. waaye so ñoo la xam ak xolam loolu la. te itam ñu yaakaar ne bu noonu. wax na lu am solo. Ah, nee naa la daal ku ci nekk li nga dund. te li gën a neex nee naa la euh, zéro a ba saata ñëpp a dugg dund mbëggeel. waaw mbëggeel wuute na. waaw mbëggeel coow li bëri na waaye yaa ngi nekkoon ci point bu am solo. nga ne da koy dëxëñee doo ko wax waaye da nga koy dëxëñ. doo ko wax waaye da koy jëf. ni nga koy jëfee mooy. jigéen da koy may te di ko dig. jigéen boo ko bëggee yor dëgg. da nga koy may ba pare dig ko. exact parce jigéen yaakaar rek la am. dëgg la bu yaakaar jeexee yebel dugg. dëgg la. da koy may pare digaat ko. ndeysaan bu ay mbokkam ñëwee nga yaatal leen labal leen. Mm. bu fekkee dañ laa bett ñëw sa ko ci ginnaaw di ko soppi sa cin. waaw mu soppi cinam. talaay walaay. pour teral ko teral ay mbokkam pour bu ay mbokkam demee am lu ñu yóbbaale. dëgg la xam gan mun nga koo teree eh, lu ne ba mu des ñaar. dëgg la. gis ak nettali. dëgg la bu ñëwee dina xool te la mu gis it bu demee dina ko nettali. dëgg la bi ci des nag mooy. Mm. fexeel ba moom ndaw si ci boppam nga téye ko téye boo xam ni mm. moom dina xam di nga féete ci moom baay mm. di nga ci moom ndey mm. dinga nga ci moom càmmañ ba ay mbokkam ñett mu ñett jigéen loolooy dalal xelam ba ay bu ñu demee ba toog nañ ay la yëwén ndeysaan wax dëgg yàlla kii lan doon jort ci moom daal amul ci daal ci daal nit ku baax walaay nit ku baax la boobaa réconciliation day daal di dëgg la dëgg la nga jekki-jekki nag toog boo toogee ñaari weer ñetti weer yow ku góor ki nga gëstu ba xam la waajuram bu jigéen bëgg wala la magam bu jigéen bëgg wala ka nga xam daal d'accord woon ci sëy bi la mu bëgg nga dem jënd ci lu bari lu ko na dem seeti diw waaw nañ dem jox ko laa jële ko ci ligne bi neex na ma <laughs> bëggeen dëgg des koy allo salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah bàcc balla kan la man baaba kan naam ba na nga baax a baax man bu wootee Bruxelles ndeysaan waaw ci émission bi laaj moom participé rek wax leen si ak. loolu moo njëkk nag. ñu ngi lay dellu ziar baax di la déglu nag. waaw ñu ngi leen di ziar yéen ñett yi. jërëjëf ñu ngi lay fay. bon bon alaaji maa ngi ma bëgg a wax mooy benn affaire. man sëy naa ak benn jigéen. di ko yàlla moom ba léegi mënu ko maa am dara bu mel ni moom. ndeysaan waaw. am naa. ah moom xëy ko dama xale aussi parce que am naa am naa cinquante huit ans. incha allah. bon mais du ma du ma du ma du ma la waxoon léegi tàmbali yi ñetti doom. ndax jigéen bu ma xam rek dafay bëgg a xeex xale yi. xale yi ma amal moom. te vraiment yéen a ko. waaw waaw ñu ngi traité ko ba ma fekk ko àll ak xeer. waay waay waay waay cay bi. man sama koo yéene traité bi Ibrahima nekk kii. wallaahi wallaahi ko àll ak xeer. cay bii. loolu beneen lu bon loolu beneen beneen lu bon. cay lii. kon ku am cinquante cinquante et quelques années. soo demee ba nga xam ne tey yaa ngi nekk célibataire. alhamdulilah bi yàlla dina màndi ci sant yàlla nag toog ko màndi dund. ndax ko biir ma bàyyi woon yéen. ay cadre lañ moom ak kër yooyu la ñuy def la man ma soo kër def la du ma ko trahir du ma ko trahir laa yor bii kon man xam naa ne kooku bëggoon na man te bëggoon naa ko waaw dama fekki ko laaj xel nag te bëgg naa ko ndax jigéen bu ma seeree dana wax ne kooku daf ma doon liggéey daf ma liggéey ma ne daf ma doon liggéey te te maa gën a liggéey waaw xale yu bëri mu ko dañu sëy ku am doo ku am yaay mu ma dañu sëy ku am baay su ma sëyal su ma borom sëyalu ma borom sëyalu ma diw sëyalu ma diw kon loolu tëj na xew yaa xew toon démb démb yow xam nga ne yow Pape loo Alaaji loo xam nga ne démb li mu doon tànnee askan ñu mhm. ne su jigéen ñi ñu ne ñaar denc di jaay dëkk bi denc nañ la diw. muy sa milliard denc nañ la diw muy sa baay yooyu yëpp amatul. déedéet kon man gisuma bëggee boobu tey man gisuma ko wax dëgg yàlla xale yi dañuy wax ne dina seer goro seer ma ko seer ma ko di di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa barakaatu. waaw laaj li métti na. waaw dana si gor. dana si gor. boo gisee boo gisee jigéen ñàkk jëkkër ni bëggatuma góor. ah sa sa jikko ja. mi ngi nii. ma lii mhm. aka fi bëri. waaw ah, te jëriñoo yedd nag. Mhm. kuy soccoo yeele gone. nga mhm. say bañ xongo. bu ñu yéegee bati guddi. bul weddi. ngor moo am bareetul. dëgg la wallaay wallaay ci lii. ah waay kii li mu wax daal. Euh, allo dugg na sama xol. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. dama doon ñaan pour wax ak Tata Degene. waaye soxna si ñu ngi lay ziar fooy wootee. ñu ngi nuyu waa Gambie yépp di leen sargal. ñëpp a ngi ah, man bëgg naa la de noo sant soppe. Njaay laa sant. Njaay su ma nee sama soppe nan Njaay ca Gambie. waaw Khady Ndiaye laa tudd. soxna Khady Ndiaye ah yow yaay yow soxna Khady <laughs> moo tax nga baax bëgg naa la bëgg naa la Ndiaye bëgg waa bëggaale waa Gàmbi yëpp macha allah. ndeysaan après Lansana daf lay jox sama numéro dégg nga. waaw baax na dinaa woote incha allah. waaye waaye soppe yow noo dundee mbëggeel. mbëggeel nag dafa laa déggee moo tax mbëggeel bu am raison. Hmm. naa nit indi nii. Hmm. maanaam bëgg naa nit ki bu alalam. Hmm. wala bëgg naa nit ki bu taaram. mbëggeel daal bu am. bu saa déggee bu ko rek doo ko nekkatul rek. mbëggeel ba du fa nekkal. dëgg la. ma dund loolu nag. ndax sama jëkkër fu sore la jógee. yàlla def ñu daje. bëggante. mu bëgg samay mbokk. bëgg a bëgg lu mu am. ndeysaan. loolu nga ko bëgg ay mbokkam. Mm. bëggaale lu mu am. dëgg la. Mm. yërëm ma. Mm. suturaal na ma. tey allah. ma. macha allah. ba tax na daal man suñu na. Mm-hmm. man gëm naa ko parce que man ko la déglu. dëgg allah. mais ñaanal na képp koo ci tool. ndeysaan. ñu rafetal jikko yi. macha allah. parce que jikko ji rafetal dina li ma neex a bëgg. te ku nekk dina la sopp. te bu ñu la soppee rek yërëb waa Gambe baax waaye mbëggeel ci jëm boppam moo yaatu. yaatu mbëggeel moo yaatu. waaye ñu ngi nekk ci ay ponk ndax façon bëggeel yi dafa wuute. waxoon naa la démb ndax mbëggeel catewul. <laughs> waxoon naa la démb. Mhm. laajoon naa la ba tey docteur ak professeur. ndax soo demee nga ne nga ne jiwu ba foog mu rafet. Mhm. waaw su baax tooyee. waaw bu su jiwu ñaawee doo déqi. muus yi amul kenn ku ji am gerte. mooy diw gu dem. waaw foofu laa bëgg ñëw nag ci jiwu ñu mbëggeel <laughs> non parce que bëggee dafa bëri te Sall jëlee ko ci ligne bi. allo allo. waaleykum salaam wa ñu ngi leen di ziar. ñu ngi sama jarbaat na nga tudd. maa ngi lay ziar bu dellu ziar baax sama jarbaat. ñu ngi lay sargal di la ziar. ndeysaan wàññil télé bi wàññil télé bi. waaw bi su ko defee waxtaan wi neex macha allah. ndeysaan bisimilah bisimilah. li ah, ngeen doon dafa am solo de. am na solo lool. waaye fi mu toll nii ah, li mu hmm. lu tax. Ah, ma ah daanaka amatuñu amatuñu doon quoi. parce que bu ñu xasee dugg ci mbirum doom. ba tax. yow te nga takk noonu pare bi sa waa ji pare bi say mbokk. loolu di ngeen fële. parce que ngay ngay fële parce que moo ko yëppeel. ah yow te nga takk li gën ci sa mbokk bi mu tëral li mooy ay mbokkam. ak lu mu amee ay mbokkam doom. yow sa bokk ku góor nga xamante bu ñu dee xamoo ci dara. bu ñu dundee xamoo ci dara bu ñu na dëgg. yaa ngi dégg. nga mm. akimu rek sa yow rek seen daal sa gisee rek mm. sa doom rek ak sa sa bokk sa yaay ak say mm. ku góor sa moom bokkatu te dafa yaatu ci jamono bi. te maa ngi leen man nit ñi am doom yu góor liggéey bi wax mu seen wax def. Mhm. waaye kenn ku ne foo nekk fa la fa nga nekk fu ne. loolu résultat bu dara dikkee sa xarit na xol bu jeex ñu mhm. ne ñoom. donc ñu ko dafa nekk. dëgg la dëgg la. lu gis sa doom sonn ci surtout nag yaa yi mën nga liggéey ñu nga sonn seen doom. di paase di yóbbu Europe di def lu ne. wallaay wallaay. waaye bu ñu xasee nag surtout ñu yàlla natt loo xam ne amuñu doom yu jigéen doom yu góor dañu am. Mhm. suñu xasee am jabar tàqale wala tàqale naa ne moom seen doom ñëpp dafa nekk. wallaay wallaay dëgg la waay. sa doom na ngeen nekk ci dëkk bi ñaari weer ñetti weer te doo ko gis doo ko dégg xamul yaa ngi nekk xamul yaa ngi naan. xanaa bu ko ci yàlla ci rek nga xam ne nu mu ko def def def def léegi mu rëcc. Mhm. bu ñëwee ba sànni yaayam dem. ca lii. yaa ngi dégg ndax dafa am ñoo xam ne dañoo natt seen doom. waaye mm. mm. dañuy def jigéen tàqale waat moom. amul fu. su ko defee def def ba nag. day jàpp di jàpp waaye léeg-léeg day tàmm na tafet. <laughs> yaa sàmm la dara bu su ko defee doo ko gisati. waaye liy métti na. te te bu dul xoolal. Hmm. ndax yow da ngay gis sa doom. nga nekkal moom ca tasa bu dara xam nga mu sa doom ñëw ci yow. mës ta dàqali ko doom. mës ta mës ta jur dara ne ni la naqar li mu am jabar. yow la a toog a am. Hmm. garab gi benn suuf ko ci weer benn suuf ko ci bokkam lu may moom rek ak boppam. Hmm? te nag yàlla bañ ñu mën a digal ñu awan nga rek ci mën a toog rek féete gi yàlla féete gi yàlla rek te am na ñoo xam ne lii bu leen mën ko soog a def. wallaay wallaay waaye xol suuf su feesee tuur wallaay wallaay mu ko def kenn wala bu leen essayé rek mu ne naa jëloon dugub te nag yàlla natt ma rek am gëm-gëm bu jigéen bu la koy wala bu la gisee. <laughs> dafa metti metti na yaay. métti na métti na yàlla li rek sa bopp ko lu ma neex. ba mu paase mu dem ba mu liggéey ba dee. liggéey ba dee ba tey bu tudd di raxasal sa bopp di raxasal sa bopp di baral sa bopp. waaw waaw di wóotal sa bopp. di këndal këndal mu rek ci say xarit ak say bopp di leen daan di dem li xew ñëw si lu xew am gën rek nga dem sa xew wa ndax mënatuñ ko ak nit ñi. nga di leen xalaat ne yow nga am ci ñetti góor. ah wala ñeenti doom fekkee nga ne dund nii rek te man yéen ñi wax ñun ñooy wax waaye wax ci mbéy mi ñooy doon nañu. wax na dëgg. ñooy doon nañu de wax. ci mais boo ci gis mu tax boo ko la rek day dina bi rek dina am yàlla waaye bi dugg dara dara la ci bëggatu te nag nga doon nag ku am dañoo mhm. mhm. ko laqal. ñu tax a gisoo ñu bët. waaye ñu dégg loolu bu dee nga xam ne dara dara du ko xam. métti na yaay loolu. mbàkk te li ngay wax. du ñëpp lay wax. loo wax rek seen man man daal ma ko wax. jërëjëf. ngeen ko wax te man njëkk bawal ko wax. loo wax rek dëgg la. jërëjëf. loo wax rek dëgg la jigéen bu baax bi la déglu ku ne. bi ñaari bu def bu baax du ko wax te bu ñëpp lay defar jërëjëf. jërëjëf jërëjëf kon fees na. waaw mais waaw mais. loolu la loolu laaj est-ce que est-ce que ñii bëgg nañu. waaw ah, parce que tamit nag euh, nanu laaj tamit. waaw waaw dañu dem pause sax ndax dafa metti metti na nañ dem pause nañ dem pause dellu siwaat ci kàttanu yàlla ba tey euh, incha allah léegi léegi lii metti na. metti na trop waay nga xam ne ñu ngi sëyee nii. Mm. bëgguñu <laughs> alaaji lii nu bëgg. Mm. nañ dem dellu si léegi. Mm. metti na trop trop trop trop. kon ñu dem dellu si. xoolam jeex na de.